champion ginnaaw buñ la masawoo yan témoignage lañ mën a recueillir ci ki xam ne moo waaw tey moom bi si sant la rek parce que tamit yàlla moo ñu boole woon moom yàlla suñu borom moo ko soxla jëlaat ko te it kenn mënut a xëccoo yàlla suñu borom dañ koy ñaanal rek euh, yàlla ko yàlla yërëm te ko àjjana ndax Baye Balla moom suñu papa lañ ñëpp tey ku fi takk ngemb man doon la bokk man suma takkay ngemb ak grâce te moom franchement parler.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 dal en de respecter sa waajur loo mën a góorgóorlu waxtu bañ laa raw danga ko danga ko jéem waaw kooku kooku ni ku ni ku baax rek koy sant nit dëgg yàlla xam nga ni dina toog du julli du conseil kenn lu baax ñi mm. dina julli sax du tal kenn ko du boppam mm. waaw mais wax dëgg yàlla bëgg na avenir ay njabootam te it bay bala du du soxnaam rek la njabootal mm. déedéet moom dafa njabootal mbedd bi waaw dafa njabootal ñoo xamante ni bokkuñu sax ci zone Guédiawaye te kilifa la ku baax la ku ñàkk kiñaan la moom laa leex rek dëgg doomu aadama bu ci sax waaw dara jomb la. àddunaam nan nan nga ko yëgee. yàlla xam ne ma maa yee ci ay nelaw waaw ay nelaw lañ ma yee xaw ma sax ki ma ko wax man man daal fëgg nañ ma ne ma ñu ne Baye Balla moo gaañ ci laa tiit juk xëppoo ndox laajte ñu ne ma lañ ñu moo gaañ après ci laa woo Omar non saf laa ci la ma Omar woo na ma sawaay jógoo ñu préparé wu affaire yi dëgg la kon ci lañ jug noonu ci lañ fi te foofu. kon daanaka Père ku nekk mën na koo jaale sa morom. ñu la koy nga koo jaale sa bopp waaw. Baye Balla Baye Balla ñëpp la jërëjëf.